del déglu del xol Feeling Dakar site bi lay jox ni formation yu leer Feeling Dakar ya ngi Feeling Dakar. ma xarit la diko ñaanal ndam rek la koy ñaanal ndam bu seddu guy mu dem ci jamm te ñëwaat ci jamm koku bu ko yalla fayé xolam. ndam lu raw ndam sax da koy am. dégg nga ni sa jëkkër la sa xarit la. waaw sa baaboy yow yaay jabaru baabooy waaw ah si naa li kon yow da ngaa xam li fi nekk tey bala Gaye war a bëre champion bu mag Bombardier ñu jotoon a bëri daanu mu daan ko sa jëkkër jàpp Bombardier daan ko tey baabooy ak Balla Gaye du ñaar kenn lan tey boo ñu doon wax tey diggante Balla Gaye ak Bombardier lan ngay wax Balla Gaye daan rek koy jàpp daan jàpp daan jàpp daan baabooy da jox kele bi baabooy da jox kele bi da bi mu yoroon mooy xëcc tànk rek mu toog daan tey tey jii ñoo moome ndam rek. yéen ñii billaahi ñoo moome. Bombardier jàppoon la da koy daan. nga da koy daan ndam rek. tey jii dañoo pare. foo ko tey. dañoo pare si lépp ndam rek. Balla Gaye ndam ndam xol bi dafa rafet. yàlla da koy defal jàmm day am ndam. yàlla da koy may ndam ndam bu sedd guy. day bëree koo xam ne day dóore. ba ma ba ma jël ku mu moom. <laughs> dootu kenn. wañaar baaboo yi. wañaar mooy boobu ba boobu bi mu kenn baaboo dem na deuxième as. baaboo yi ba yow yow war ngaa yóbbu baaboo yi. ci digg ndëndam la ko daan. war ngaa yóbbu baaboo yi bi ci digg ndëndam. dama moo tax dama lay wax ne la moom bi muy daan baaboo yi boobu boobu safewul. tonton Gara wàññi na yoon. waaw boobu safewul. Ah. waaw bi mu nekkee ci digg ndëndam. la ko baaboo yi daan nee na baaboo yi boobu safewul. boobu boobu safewul bi mu koy daan pare loolu du combat. loolu du combat du combat combat baa nga woon fee mbuur mu fekk ko dëkkam daan ko. Thiès muy xëcc tànk. waaw muy toog boobu baa booy mënoon na lu nekk waaye retour bi de moom. retour bi tonton garaad. boobu ginaar yi ma ko jox a bari. <laughs> dégg loolu ñu ngi ak jabaru baa ndeysaan dégg li mu wax lépp seen naa leen ba tey ñu ngi nii ba tey géejawaay ba tey ñu ngi géejawaay seen naa leen ba tey ñu ngi géejawaay ba tey ñu ngi géejawaay kër Balla Gaye mbana yi fii la fii lañ ko doon tooge fii lañ doon toggee ñii ñoo toogal Balla seen naa leen ñi doon doon toogal Balla Gaye ñii dañuy juge ba Touba ñii dañuy juge fu nekk ngir Balla Gaye ndax ku nekk ku nekk xam nga ni Balla Gaye doo leen ko jaral ñu ngi lay siyaar ku baax. waaw alhamdulilah mastaan rajiim bisimilah barke sëñ Tuuba journaliste yi ñoo ngi leen ñoo ngi leen delloo fa yéen di leen delloo siyaar masta coono leen bokk waaw neen def ah tey dañoo am suñu revanche ñu ne Bombardier xam nga loo ci teg aller la muy match lépp nag. mu ñu ñu defoon yàlla defoon Bombardier yi amoon ñu kaw ndam tey yàlla def na ñoo ngi am moom ñaan suñu borom xam moom may mooy maye yàlla yàlla ñoo ngi lay ñaan di la tàll suñu loxo yàlla nga nu may ndam tey ci kaw Bombardier ñu daan ko jël bu rëy ñu am suñu suñu revanche ci kattanu yàlla. nga doon bëre koo xamante ni mos ngeen a bëre mu ngeen musee bëre ci seen làmb ja nam demee bu la fa am lépp Bombardier ko def tey nga war a jël revanche combat revanche ba pare nga koy bëreeg arène nationale tey ma wax lu rëy nag bi ñuy bëreeg Bombardier yow ku a xam ne ñu danoo feebar lu leen dal sa waay dafa feebaroon dafa griboon girib sëñ Tuubaa ba bi mu génn buñ ko yaay man maa noon tuwaan bi da doon wàcc yaay jën ko ay Omar bul bul dem mën yaay ma dem parce que Aziz Ndiaye bëgguma yàq bisam boobu Aziz Ndiaye moo tëggoon combat bi xam nga loo gis rek góor la nit bu la bu la fayee teranga fay ko teranga mais Bombardier yow war na la ni mënuñu te boo xoolee ah, yàlla rek ah mënuñu de waaw yàlla rek moo xam ah mais na tey dinañ jël suñu revanche ci kàttanu yàlla suñu borom bi incha allah rabbi Bombardier di dóore mbër moo xamante ne ni mu toll macha allah dafa jaaxal mbër mi pour mbër daan ko door dàq noo dóor yow koo dóor ah ñun ñun dóor bëri na waaw ñun dóor bëri na bëgguma wax quoi wax baaxul boo bëri day yàq mais ku ne xamee mbër yëpp du mën naa leen lan moo ko jik xanaa ñëw taxaw dëggal boppam gëdd Bombardier Bombardier jaxasoo ma jàpp ko daan ko man nag loolu laa gis. est-ce Balla loolu. mooy mooy forum ku duma Yékini sa waay ñaari jëli ci benn takkusaan Bombardier war laa mën a jaaxal te Bombardier maa ngi ñëw Bombardier Yékini daan na ko ñetti yoon waaw kon nga xam ne kon Balla daan naan la. yàlla ma kan sa kaw kon Bombardier day dox ñëw suñu kaw Bombardier du dox. la mën ah du ko def tey de ñu koy maal ko moom te ah, da nga ne ko Abaye taal bi Sèye waxoon na ko. Balla Gaye. Balla Gaye ñu moom mooy ñu koy conseillé ñoo ngi koy ñaan yàlla na tey def ndànk respecté Bombardier parce que àdduna toujours da ngay nit ba ca bi sax sa doom bi nga jur da koy respecté boo ko joxee cër rek yàlla ñëw jox la bu rëy rëy waaw loolu nag de question dara nag ci Balla waaw a boori euh, midi mère Kumba mooy togg ami wi moom moom moom kër gi nga dem foofu ak ñoom teel na noo pare sax lamb ñun yàlla fi ñu dimbali ñu a pare waaye nag ah, ñun man maa ngi jóge Njaareem kër mag waaw man waa Njaareem laa mais nag Tëngéej laa doose quoi waaw Balla Gaye daal moom indi ak ak ak bokk ak moom rek waa waa meddu lenn nag wax dëgg maane waaw maane waaw ane amee ngee maane